asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ziar jaajëf mbokk yi pardon asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ziar ñu ngi ziar ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax suñu gaay suñu suñu frère yu baax ak suñu sœur yu baax yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Kayz Fof activiste la bienvenue ah donc moom yeneen information yu ma leen bëgg a partager waat rek <clears throat> ci suñu révolution bi waaw jërëjëf sama gars yi bës leen bouton cœur bi bu baax léegi xam ngeen système bi naka la donc bës leen bouton cœur bi bu baax donc dafa am ay mouvement police ak gendarmerie yoo xam ne ñu ngi déplacé wu ay jeunes policiers en formation ay jeunes gendarmes en formation ñoo xam ne pareeguñu sax ci seen formation ñoo xam ne Macky Sall daf leen rappeler d'urgence pour ñu dem Dakar Hein? parce que amna ben affaire bo xam ne moom moo xew kaayis fofu génn wax len ko moy Macky Sall dafa wara réquisitionner armée au début pour vaccin d'abord ensuite tay pour vaccin ak Ousmane Sonko ça veut dire Macky Sall am ñaari liggéey un dafa wara jël armée bi pour ñu imposer ñu vaccin mu bëgg jëlat armée bi pour ñu protéger dëkk bi bu jappé Ousmane Sonko donc sama gars dëmb wax naa leen benn affaire vaccin yi commencé nañ ko Sénégal ak yàgg na bi ma leen ko waxee mais léegi ñu ngi koy gën a officialiser commencé nañ ko ñu ngi ci kawam donc delluwul ci ginnaaw par rapport ak vaccin yi nee nañu AstraZeneca finalement moom la ñuy mujjee jël loo xam ne nee naa leen Pfizer ak bio BioNTech bu ñu doon utiliser fii sax moom moo ko ëpp euh, performance. moom moo gën a rassurant sax AstraZeneca bu ñuy wax ni ñu boole vaccins chinois et xam ne ay test la mais ci loolu mu ngi waajal Ousmane Sonko Macky Sall ma bu baax ne fan pour jàpp man koy ni d'accord information mais je ai rien à foutre cordialement Ok Y'en a préparé pour le Japon, mais j'en ai rien à foutre. Je vous le dis encore une fois. De toi, Macky Sall, de tes ministres, de ton ministre de l'Intérieur, et de tous ces pseudo-politiciens qui ont tardé sur nous de bataille Donc, c'est ma gars. voyez, une révolution bi dafa jot du affaire de Ousmane Sonko couvre-feu bi daf ko imposer ngeen commencer faire spontanément ngeen arrêté parce que da ngeen maire. expliqué na len ben affaire nee naa France fi sax boy décréter yenn affaire yi dafa am ay chômage partiel lo xamanteni dang koy jappalé population pour ñu am lu ñu dundee Sénégal Macky Sall xifal len depuis début coronavirus bi ñepp sonn ñepp mar lolu motax nit yi bu ñuy jog. tey du ay nit Ousmane Sonko kessé jog peuple bi moy jog bu ñuy ne ay nit Ousmane Sonko bañ len ko génn len ñen ñi nga xamanteni bokko len Pastef ngeen len dañoo maar bëggatuñu Macky Sall motax population bi yépp génn contre Macky Sall parce que bëggatuñu ko yéen ñi nga xamante ni mu ngi laaj seen leader ngeen nekk ay militant wu Ousmane Sonko gën leen yokk courage parce que waa ji narul ci dellu ginnaaw nee na daf leen daf leen day ñëw jàpp seen leader da koy jàpp. yéen ñi nga xamante ni tamit da ngeen maar depuis arrestation Khalifa Sall depuis arrestation Karim Wade depuis injustice depuis inondation ak détournement de milliards affaire Aliou Sall affaire 94 milliards ak lépp loo xam ne nguur gii nii teg na ko sénégalais. ak yéen yi nga xamante ni dangeen di ñëw ba bitim réew Macky Sall delloo leen ngeen nekk ay soutien de famille mu jox leen sandwich bàyyi leen ngeen réer ci biir dëkk bi yan laay waxal Sénégal colère bi dafa egg à son plus haut niveau ñëpp a mer ñëpp ñu mer yooyu la ñuy woo ngeen ñëw ñu mëne suñu révolution duñ ci dellu ginnaaw menace Macky Sall du ma delloo ginnaaw menace arrestation bu may arrêté du tax benn yoon ma dellu ginnaaw Parce que dans ce combat-là, on est prêt à perdre plus que notre liberté. On est prêt. Donc, il ñëpp na préparer. préparé wu vacciner nee na dina Ousmane Sonko ñun nous lu proposer lay Macky Sall bu faites yow amener la paix dans ce pays-là Dès que ngi bëgg tu refuses de te prononcer nga en France ñëw toog fini de rendre compte à Macron est-ce que c'est à Macron que tu dois rendre compte ou c'est au peuple sénégalais que toi Macky Sall c'est de rendre compte Mais ce du nous ñun la Yangi France di rendre compte Macron est-ce que tu as parlé depuis affaire Ousmane Sonko bi da nga wax deuk baangi tak tu t'en fiches c'est pas ton problème nga jël policier pour ñuy dóor nit ñi le dialogue tu t'en fiches yow chaque fois ça entêtement deuk bi buy tak yow ti na rien à faire ba heure boobu ngay jël avion genn deuk bi dem lijjanti loo xamante ni kenn xamul limu doon donc tay deuk baangi bëgg tak à cause de toi parce que organ orchestration bi ni yëpp ci xalé bu jigen bi yow ya nek yow ya nek ci suuf nit yi xam nañ ko nit yi dofuñu donc yaa ngi bëgg a taal dëkk bi di daw France dem rendre compte parce que ñu ngi menacer ay intérêt français bul waxa ah, ñun on va t'imposer une chose population bi dama bëgg ngeen xam benn affaire assemblée nationale qui wax naa ko ci 24 assemblée nationale nekku fi pour le peuple ay député yuy naan man député Macky Sall la bu ma nee ma voté oui ma vote oui bu ma nee ma non ma vote non ces députés ne nous représentent pas donc il n'y a personne qui nous représente à l'assemblée nationale ku Ousmane Sonko amna ay loi yu bëri lo xamanteni ay écho moné xaliss buñu wara a changer def ko écho yoy yeb dañ ko bëggoon jàllale ci assemblée nationale présence Ousmane Sonko motax tax ba ñamewuñu ko laal. dama leen di expliquer ben affaire immunité parlementaire Ousmane Sonko buñuy ñuy waaj c'est parce que dañoo am ay affaires yoo xam dañ ko bëgg profito profité ko ci assemblée nationale pour kenn baña a lo xamanteni ñom dañ koy def contre le peuple motax tay ils veulent tout faire pour lever immunité parlementaire Ousmane Sonko exclure ko fo xamanteni fofu moko don permettre pour mu jox sénégalais ay information tey ay nitu Ousmane Sonko ñoo waroon nekk fépp ci mairie yi Macky Sall baña organiser élection locale que agenda électoral amul ben président bo xamné ne sañ-sañu repousser ko amna sañ-sañ amna droit repousser ko amul calendrier électoral bi da nga koo respecter en tant que président de la république bu ko respecté won maire yu bëri nga xamante ni ñu ngi toog di fa nekkal Macky Sall dootuñu fa nekkoon majorité bu mu am ci assemblée nationale bu defoon élection Macky Sall du am majorité boobu assemblée nationale. parce que ay nitu Ousmane Sonko ñoo yi ay nitu Ousmane Sonko ñoo fay bëri tépp foo xamante ni élection mooy tax nit toog fa rek tey bu ko organiser moom da koy perdre parce que ay nitu Ousmane Sonko yi ñoo ëpp ci réew mi sa Seck ñëpp banañ ko parce que trahir na mission bi xeex bi dem na ba ci biir xool ci intérêt personnel am mu trahir askan bi. donc kenn kessé mo fi dess ki nga xamante mom le sénégalais yépp renouveler son confiance mu nek Ousmane Sonko mu neex ñu mu nakari ñu c'est ça la vérité donc dama leen di wax ben affaire Macky Sall mom la leen bëgg jappal il veut arrêter Ousmane Sonko bugg dugal ko prison xagn leen sen droit bo xamante mom moy sen droit à l'information parce que député yu bëri fa nek ay traître lañu dañoo trahir Sénégal dañoo trahir le pacte qui est lié avec ce peuple là. donc nu on n'a plus de députés Macky Sall on te dit une chose vaccin yi nga xamante ni da ko bëgg imposé population danga koy jaarale ci référendum waaye wala sinon kenn du vacciné wul kenn du vacciné wul ci Sénégal dama la koy wax nga nga dégg ko bu baax nga vaccin yoo bëgg a indi Sénégal tant que référendum amul immunité parlementaire Ousmane Sonko bi nga bëgg a lever tant que référendum amul doo ko fi lever vaccin doo ñu ko fi vacciner Nous, légui assemblée nationale représentée, ñu on exige des référendums peuple bi prononcé parce que le peuple est exclu des discussions peuple bi amatu représentation peuple bi batom ken mënatu ko dégg ci Sénégal lu la neex ngay def donc bo gisee ñu egg ci situation yépp c'est parce qu'on t'a toujours parlé tu as refusé de nous écouter tu t'es entêté nga yaakaar ni tu peux tout régler avec la force tay jaxlé nga parce que tout le peuple est contre toi tout le peuple est contre toi tu n'as plus de soutien un parti fictif bo xamante ni kenn xamul ñan ñoko représenter ñew Sénégal bëgg ñu imposer la force ana sa membre ana ñu le soutenir tey tout le peuple est contre toi kenn mënul génn soutenir Macky Sall parce que tu n'as rien foutu dans ce pays à part de ñu nakaran, à part de ñu dóor à part de ñu indil choono à part de ñu indil ay jafé jafé ci suñu dundit loolu ñun mënatuñu ko continuer subir il faut que tu le saches donc menace yi may menacé man tiitalu ma sa ay nit ñu ngi may envoyé ne ma fan yi di ngeen ma japp amul benn problème mais même en prison bu ma ko nekkee que mon peuple se libère que ce peuple là sache que dañoo egg ci point boo xamante ni on ne peut plus reculer avec cet homme on veut le départ de Macky Sall avant 2024 loolu moo war a nekk suñu mot d'ordre ñun ñëpp te duñ ci dellu ginnaaw benn yotaa on ne veut plus de compromis ak Macky Sall on veut simplement son départ dañ koy dàq suñu réew dañ koy jëlee palais te jeunesse bi paré nañu ñëpp paré nañ gaa jënd ay kagul ñi ñu ngi dajalé sen ay xéer ñi ñu ngi jënd sen ay camion lance-pierre gaay yëpp nañu moyen buñu am pour dinañ ba jour armée bi di soutenir pour aboutir pour pour combat bi aboutir armée ñu ngi leen ci on n'a plus affaire à un homme qui est là pour les intérêts du Sénégal Macky n'a jamais représenté les intérêts de ce peuple là accord yu mu signé yëpp musul nekk ay accord yoo xamante ni wane na fa patriotisme wane na fa euh, bëgg Sénégal accord yu mu signé yëpp c'est contre les intérêts des Sénégalais donc nit du dëkk di ñu trahir nit du dëkk di ñu naqaral ñu ne non dañ koy muñal dañ koy muñal dañuy xool ci yàlla xool ci yàlla depuis 2012 ba léegi peuple baa ngi nii di maar ñëpp a ngi bëgg dee ci Sénégal donc lii ñun am nañ solution pour arrêter ko mooy population bi yëpp jóg arrêter ko seen bopp négocier wuñu ak kenn. ñu kenn ku ñuy ne toog leen ñu kenn ku ñuy ne dal leen dégluwuñu kenn ku ñuy ne euh, euh, toog leen ngeen muñ dañoo sonn waaw pendant tout ce temps là depuis 2012 ba léegi Macky Sall mu ngi def ñëpp di gis waaye ñun rek ñun ñoo koy muñal Macky Sall amul dara lu ma muñal askan bi lépp luñ ko ñaaj ban na ko nee nañ ko jëleel Aly Ngouille Ndiaye comme ministre de l'intérieur moom jëlee ko pour balaa muy nekk ci suñu ay élection Macky Sall lu ñu tontu fii dëgg ngeen ko nee na leen duma ko def lépp lu ko askan bi ñaan nee na leen du ma ko def lan moo tax Macky Sall war ñu ñaan wala ay nit war ñu ñaan pour ñun ñu jéggal Macky Sall ñun ñu koy jéggal jéggaluñu Macky Sall benn yoon parce que du nit du nit du nit loolu dafa war a leer ci nopp ñëpp sama gaay yi li ma leen wax trop c'est trop Macky Sall ñëpp jàpp na leen fi jël justice bi instrumentaliser ko activiste amoo droit wax Macky Sall jël na fi ay imam di leen dóor jël na fi ay oustas di leen dóor Macky Sall jël na fi ay homme dàq leen ci réew mi xal euh, euh, Karim Wade jël Khalifa Sall dougal ko prison jël ñeneen ño xamanteni ni ci parti yom mu jël créé bi di len traquer di len traquer di len traquer ba ñooñu dañoo mujjé nek ay transhumants mu Encourager transhumance bi nga xamanteni mom mom la doon dénoncer ci nguuru Abdoulaye Wade donc dafa am yo xamanteni ni ñun amuñu dara lu ñuy seet ak Macky Sall c'est maintenant ou jamais on est prêt on va déloger Macky Sall du palais du question de Ousmane Sonko affaire Ousmane Sonko bi étincelle lay doon qui xamanteni moy tal pour suñu liberté s'il faut tout détruire pour reconstruire on est prêt la révolution française a mis fin Ben hégémonie qui fi nek bu fi nekkoon ay nit yu injuste yi nga xamanteni dañ fi di lor français révolution française dafa ñëw ñu jël ñu yëpp guillotiner leen dag sen bop bi séparé ko ak sen yaram liberté peuple français bi fa la commencer liberté peuple sénégalais ci une révolution a commencé s'il faut tout détruire pour reconstruire parce que depuis 1960 donc il faut tout détruire pour tout reconstruire on est prêt à faire ce sacrifice là tant qu'on ne passera pas par ça le Sénégal ne connaîtra jamais de liberté parce que contrat nous ñu signal ne kenn xam ko dafa am ay contrat Sénégal ba heure kenn ñamewuñu wax contrat yooyu lu mu doon moo tax bëgguñu usmaan Sonko yegg ci foo xamante ni dinañu révéler lépp loo xamante ni mooy ay conditions nootange yi nga xamante ni Sénégal mu ngi ciy nekk ba léegi. gis ngeen assemblée nationale bu mu duggee assemblée nationale lépp lu mu leen xamal tey dañ koy nëbb ay dossier bëgguñu ay nitam toog ci mairie yi parce que ñoom dañoo luubal alalu réew mi bëgguñu ay nit Ousmane Sonko ñëw ci mairie yi constaté ñoom dégâts bu ñu def ci Sénégal. motax ñu bëgg xañ ay nitom di créer ay di di toj ay këru jambour loolu yëpp diversion la ay stratégie de diversion la ñëw di ñu indil ay affaire de viol loolu yëpp ay stratégie de diversion la mais une chose est sûre c'est que bu mu nee rey Ousmane Sonko il n'hésitera pas à le faire parce que lépp lu mu fi def lu bon kooku moo am sañ-sañ ñëw taxaw dénoncé ko Thierno Alassane Sall tamit def na ko ñu ngi koy sant di ko gërëm tey patriotes yi yëpp yi nga xamante ni pare nañu pour rendre compte à ce pays-là, pour dire à ce pays, le mal est là. Il faut le citer, il faut le dire. Il a un nom, c'est le mal s'appelle Macky Sall. quest Koko ko wax on est avec toi Kep Koko ko sañ kep dëggal képp ku sañ a on est avec toi il n'y a pas de souci mais tout le monde contre Macky Sall on en a marre de cet homme-là référendum pour vaccin wala ñun Il a ngay def référendum peuple de Bougoul do ñu imposer ti dara Macky Sall dialogue national bo xamanteni da ngay jël ay nit corrompre leen jox leen suñu ay milliards pour ñu voter la neex dialogue national nous ñun faletuñu ko kenn ci opposition bu mu demati ci dialogue national ak Macky Sall kenn ci opposition bu mu demati ci dialogue national ak Macky Sall parce que dialogue national conclusion dialogue national yi peuple bi nous ci gis bopom loolu mo permettre Macky Sall de repousser l'élection et de ko repousser ba tay Donc ñu donc y en a marre les députés ne nous représentent pas personne ne représente plus le peuple à part rares personnes yi nga xamante ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñun les dignes ñoo ont ni des nañ ci opposition bi ñoom Père Abdoul Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoo nekk tey di taxawal xeex dëgg ci Sénégal ñom Ousmane Sonko ñom ak Thierno Alassane Sall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc xex bi ni foog ñu nekk ci sama gars yéen ñepp lay wo soyez prêts diaspora bi paré leen xeex bi gis ngeen ñun nuñ ko porté moo tax bu loolu mooy gën a may fit sénégalais tey lu bëri ñun diaspora bi ñun ñoo ko mën a wax parce que ku ko wax Sénégal ñu teg la loxo ñu jàpp la dugal la prison donc ñun dinañ leen ko wax ngeen dégg ko ngeen partagé ko sénégalais yi jot ko doo leen mës a wéet ci combat bi lépp loo xamante ni c' est pour euh, communiquer communiquer pour yan ñun dinañ ko def parce que on à distance yàlla may nañu force boobu pour ñu mun a communiquer te mënaluñu dara Macky Sall mënalul ci diaspora bi dara. loolu bu kenn ragal ku nekk ci diaspora bi man maa leen ko wax tey balaa nga may rapatrier Sénégal balaa nga may en di nga jaar foofu ak foofu ak foofu noonu balaa nga koy mën loolu man maa la ko wax. ni nga ko yaakaaree noonu lay yombee je te dis que ça ne sera pas aussi facile. tu m'attraperas pas comme ça loolu wax naa la depuis premier jour bu ma duggee ci xeex bi donc boo yaakaaree ni da ngay ñëw jàpp ma directement yóbbu ma Sénégal dugal ma prison tu te trompes très lourdement dama la koy wax ñun du ñu ay dof bu dee jàngale nee naa la ñun ñoo la gën a jàng fuuf. voilà donc Macky Sall dara nekkul ci boppam lu dul trahir askanu Sénégal moom muus bu dee muus na ci lépp lu mu koy wone mooy di toroxal peuple sénégalais bi toroxal peuple sénégal ñëpp a ci Sénégal ñëpp donc yéen ñi nga xamante ni couvre bi tax na ba lekkatoo leen seen kër yi bu ñu newatee manifestation bu leen toog seen kër buub leen seen ay bagage génn leen dem jàmbaarloog Macky Sall bu leen kenn ne dëkk bi ñun ñoo ko moom kenn waru koo taal kenn waru koo lii dëkk bi dañ dara moomatuñu ko ñun. dara moomatuñu ko peuple bi amul dara lu mu fi mom ay nit ay quelques minorités de personnes ñom ñoo mom alalu réew yépp peuple bi amul dara lu muy jot ci alal bi lu dul di fay ay taxes yo xamanteni ni chaque jour mu yok ay taxes yo xamanteni chaque jour lu ñu jënd mu yok essence yoko, lepp lo xamanteni courant yok ñun yok yok yok lepp a yokk ci askan bi waye dara do wàññeeku ci askan bi ba paré bu ñu waxee ñu dëkk bi ñun ñëpp ko mom ah dëkk bi bu leen ko taal bu leen ko def di leen wax wax dëkk bi tant que djogolen nous avons seen pouvoir de Il faut que le peuple récupère le pouvoir le pouvoir au peuple il est temps depuis toujours on souffre dans ce pays là Il y en a marre Il y en a marre Il lii foog mu jeex yàlla teguñu ko ay doomu aadama ñooñu ko teg ni ngeen talé këru Mamour Diallo def ngeen lu rafet parce que mo Mo sàcc plus de 94 milliards ñom ñëpp dañoo war jël seen ay avion ay français lañu duñu ay sénégalais nationalité française lañu am ñun France lañ nekk si sax ñun amuñu nationalité française ñom ñëpp ay traître lañu bo leen commencé xokatal leen rek ngeen gis ñu jël billet kese lañuy jënd pour ñu ñëw toog fii France nekkuñu fa pour seen ay intérêt ku fa nekk pour seen ay intérêt gis ngeen nuñ ko nekk di sonalee Ousmane Sonko la nuñ ko bëgg a jàppee ñu fa nekk pour seen intérêt ñom Khalifa Sall la gis ngeen luñ leen def. Karim Wade gis ngeen nuñ ko exiler de force au ko Sénégal gis ngeen jeunes yi nuñ leen di empêcher pour ñu voter né ñu non votant bind ko ci suñu carte d'électeur depuis quand Macky Sall est un roi dans ce pays-là est-ce que ça c'est la démocratie Les ay citoyens le droit de vote le Sénégal est une démocratie Nous ñu organiser ay élections nga le Sénégal est une démocratie di traquer ay activistes jëlé les États-Unis comme Assane Diouf parce que deug bu lay wax on est une république on est une démocratie Sénégal est à la 9 neuvième place ci ay statistiques démocratie on est à la 11 11e place africaine on était à la 82 e place mondiale aujourd'hui on est à la 86 e place mondiale ci indice démocratie Sénégal mu ngi reculer démocratie tay on est des pays entre la démocratie et le totalitarisme la dictature Nous ngi à mi-chemin Sénégal tay angle bobu le situé entre pays bu démocratique ak pays bu totalitaire donc kañ lañuy basculer suba parce que Macky Sall delluwul ginnaaw benn yoon mu ngi gëna foncer ci kaw askan bi nit ñang koy bayyi muy muy dawalal donc il y en a marre ça suffit dëkk bi Macky Sall moomu fit bu mu doon woné ñun ñoko ëpp fit parce que menacer nañu menacer nañu menacer na ba sonu bayyi ñu ben yoon xex bu ñuy xex contre mom donc bu fekké fit la doon woné ci bu mu nekkon opposition ñun ñoko ëpp fit parce que ñun ñu ngi continuer di xeex di wax di xeexal suñu askan. donc du ñu dellu ginnaaw bu fekkee mon amon na fit 10 ñun amon nañu fit am nañ tey fit 100 voilà ki arriviste la jaam la deretu jaam moo nekk ci yaramam dafa nar a jaay Sénégal te jaay na Sénégal ba pareil. président vous rendre compte à chaque fois ci lu xew ci sa après nga ne tu es un pays indépendant jël l'indépendance indépendance Sénégal recule le de plus de cent ans te Sénégal président Sénégal lu xew ci Sénégal day daw si ñëw rendre compte. ah donc yaakaar ngeen ni ñun sénégalais moo ñu jiite yaakaar ngeen ni sénégalais moo ñu jiite Sénégal di gën a ci dëkk yi ah ay Mauritanie raw ñu Guinée Conakry raw nañ ñu ci ay statistiques de progression bu ñu nar a am en deux mille vingt et un niveau économique dëkk yi Afrique yëpp ñu ngi ñuy raw suñu milliards yëpp sàcc nañ ko dugal nañ ko ci ay compte seen doom yi doon nañ ay milliardaires seen sët yi doon nañ ay milliardaires. peuple bi chaque fois ñu ñu ne muñ leen muñ leen lu yàgg lu metti yàggul lu metti yàggul depuis 2012 lu metti mu ngi bëgg a yàgg depuis 2012 lu metti mu ngi ñuy bëgg a rey voilà ku mënal wax ak Macky Sall bul waxati ak ñun muñalul ñu kenn Macky Sall mosu fi muñal askan bi kenn du ko fi muñal dara fu mu yem neexati désormais donc sama gaay taxaw leen en rang de combat vaccin bi bu bëggee nit yi jël ko daf ñuy créer référendum force wala kenn du ko laal bu fekkee Ousmane Sonko ñu pour nous lever immunité parlementaire na demande askan bi seen seen avis assemblée nationale représenté wul avis du peuple na organiser référendum laaj sénégalais yi ndax pare ngeen lever immunité parlementaire Ousmane Sonko mu xool sénégalais yi koy tontu sénégalais yi non lañ koy tontu bu ko laal. bu paree ñu ne assemblée nationale ñun la fa représenté assemblée nationale Macky Sall la fa représenté amuñu benn crédibilité pour décréter quoi que ce soit au nom du peuple L'Assemblée représente Macky Sall ne me représente pas loolu laa bëgg ngeen xam ko ne vous représente pas rien. Assemblée nationale, Macky Sall le représente. Et on est prêt à tout contre ces gens-là. Et Macky Sall ne sera pas le seul à payer le prix. Hein. Soyez tous prêts, vous allez tous y passer, ben par ben. Tous ces malfaiteurs-là, vous avez la chance soit de vous repentir, si vous ne vous repentissez pas, le mal vous tombera dessus. Comme nous sommes tombés sur Macky Sall. Ibeka, ak ñu doon IBK vous allez voir ce peuple est déterminé bu da nga bëgg emprisonner Ousmane Sonko mais vas-y Macky Sall ne recule pas da nga jël ay gendarmes, ay militaires ak ñëpp yóbbu leen vers Dakar pour arrêter Ousmane Sonko tu vas voir la suite Macky Sall c'est la fin de ton régime actuellement tu es fini 2024 yow doo ko fekkee ci Sénégal on te le dit 2024 do ko fekkee ci Sénégal Ousmane Sonko mom moy nek étincelle bo xamante mom mo lay coûter ce pouvoir là gis nga keroog la won 24 juin xewul ci Sénégal gis nga keroog luñ la won le peuple est avec Ousmane Sonko manifestation xew na ci aduna ci diaspora fépp ñep jóg nañ donc tu sais que c'est Ousmane Sonko le président du Sénégal ce n'est pas toi parce que tay bo gisee ñu laal ko Sénégalais yi jog fépp ci aduna bi c'est parce que c'est lui qui a la légitimité du peuple yow amo ben légitimité motax kenn gisuñu kenn ku jog di le soutenir wala kenn ku jog di wax en ta faveur donc Ousmane Sonko boko beugé japp jappal jàppal du yomb ci yow voilà Tay diaspora bi ñëpp won nañ la Amérique ñëpp won nañ la États-Unis gars manifestent. manifester nañ fii a France ñaata jour ñaata la yoon lañ fi manifester Sénégal région bu nek gars jog nañ Ñepp ngi pourquoi parce que tu penses que n'importe qui nga là. tu n'as pas touché n'importe qui dans toutes les régions du Sénégal partout dans le monde les Sénégalais sont prêts ils sont mobilisés pour xamal la ni Macky Sall yow tu ne représente pas ce pays là c'est Ousmane Sonko qui incarne l'espoir de cette jeunesse là donc espoir bobu tu ne vas pas l'anéantir toi Macky un arriviste de n'importe quoi hein? Qui nga xamanteni ay lobby ñoo la installé ci suñu dëkk té nga nekk di len satisfaire lepp lu la wax nga koy def di ñu wax il faut plaider pour da ngay plaider pour le nouvel ordre mondial sénégalais dañ la laa fal pour nga nekk di plaider pour le nouvel ordre mondial quand est-ce que tu plaideras pour le Sénégal tu es devenu ambassadeur des entreprises françaises au Sénégal. Quand est-ce que tu seras ambassadeur des entreprises sénégalaises au Sénégal donc nous, lay fal ngay bàyyi suñu ay population di jël ñeneen di def priorité ci suñu dëkk mënul continuer on est prêt à mourir pour ce pays là da nga une une détermination jeunesse bii nii moo la gën déterminée. déterminé ñun ñoo la gën a jeune balaa ngay jël nguur gi ñun ñoo la gën Nous déterminé ñun nous la gën de dëgër ñun ñoo la gën pouvoir de communication Désormais, xamante désormais sénégalais yépp a ngi jóg di wax te mënoo tere nit yi wax sa dictature bi da ko indi won ci réseaux sociaux pour tiital nit ñi ci partager tay le nit ñi gën a partager da nga doon tiital nit ñi ci commenter tay le nit ñi gën commenter parce que faalewuñu la faalewuñu la ak lepp lo xamanteni ni da nga koy jël comme mesure bu ko imposer population kenn faaleetu la léegi tay ñëpp a sama gars bu kenn recul pas de recul Macky Sall vient sonner la fin de son régime man ma lañ ko wax tay Macky Sall vient de sonner la fin de ce régime là c'est fini ñun dañ lay jëlee palais dañ lay jëlee palais peu importe le prix à payer on va payer ce prix là te armée dinañu rejoindre ñu ngi woo militaires yi gendarme yi corps ba mu munti doon ci Sénégal yéen ñi nga xamante ni yéen la ñuy envoyé ci salle besogne yi ci Casamance pour ngeen créer fa guerre ngeen nar fa dee tout ça vous êtes les yéen amul dara ci salaire ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo constituer armée yéen vous êtes les plus euh, perdants dans tout dans l'armée il y a yi nga qui sont pour expérimenter le euh, terrain avec le peuple yenn ay subir briques yi ci les bopp yi yenn ay subir saaga yi subir lu nekk ak lu nekk donc ñoom patron yi nga qui ni Macky Sall moo leen di yóbbu ñu ngi toog ci seen salon confortable yi ñu ngi toog ci salle climatisée di encaisser plus de 50 millions 100 millions par mois a qui ont amené 60 000 sax lu bëri la ci nga ngi joxe pour ce pays là. Donc vous ne devez rien à Macky Sall, vous devez tout à ce peuple-là. Parce que ce peuple est reconnaissant à votre égard. Le peuple n'a jamais été injuste envers vous. Le peuple vous a toujours traité comme nous l'avons traité. Donc vous ne devez pas vous positionner du côté de Macky Sall pour toroxer le peuple. L'heure est au choix. Et nous choisir dans ce pays-là. Personne n'a plus le droit d'être neutre au Sénégal. Quel n'est neutre au Sénégal Il faut que nous définir la position on est soit avec le peuple ou on est contre le peuple soit on est avec ce peuple là ou on est contre ce peuple là on ne peut pas continuer à vivre ainsi sénégalais on ne peut pas continuer à vivre ainsi un seul homme n'est que l'enfer de tout un peuple plus de 16 millions d'habitants di fal ay ministre yi nga xamante ni dañ fiy nekk di détourner suñu ay milliards boo leen laajee réalisation duñ la mën a citer benn hôpital boo xamante ni tabax nañ ko depuis 2012 ba léegi hôpital bu àgg boo xamante ni équipé nañ ko et tout ça la ñu lay wax coronavirus 1000 milliards yi nga xamante ni benn hôpital tabaxuñu ko ci ba pare nee nañ population da ngeen war a moytu coronavirus benn hôpital ci 1000 milliards defoo priorité pour ñu équiper benn hôpital wala ñu tabax benn hôpital ci 1000 milliards yi te nga ne affaire bi nekk na menacer Sénégal nga dem jox ay hôtel di jox ay ay ay ay ay ay artistes di jox ay communicants traditionnels yi ci période on est en guerre période bu dangereuse dans l'histoire de notre pays ngay woo ay nit di défiler ci palais di leen jox ay enveloppe nga ne tu en train de combattre le coronavirus chaque occasion Macky Sall da saisir pour sàcc alal da koy saisir pour l'oubal alalu il n'a jamais été là pour défendre ce pays là il n'a jamais été là pour soutenir les faibles les populations yu ko donc toi Macky avec le petit euh, ces petits gens là ñi nga xamante yene prendre su yene tey suñu deuk en otage nous ñu ñu am ay informations ci suñu deuk lui suñu droit sax communiquer les bonnes informations ñu informer sur le Sénégal vous refusez de nous informer télé bi nga xamante c'est la télé de la république RTS suñu papa yi di cotiser suñu yaay di cotiser pour RTS RTS boobu mënatul génnee dara loo xamante ni lu lu soxal askanu Sénégal vous avez tout pris en otage médias yi vous les avez pris en otage il ne reste plus au peuple que les réseaux sociaux donc on va se battre avec ces réseaux sociaux là te incha allah réseaux sociaux yi ñoo lay jëlee Sénégal censuré nga sama ay page maa ngi ci chaîne YouTube bu tudd KS Fof TV dem len ngeen abonné wu fa ngeen tapé kais Fof Activiste TV buñu censurer sama page Facebook ngeen dem ci YouTube bi ñu continuer fa xeex bi parce que ñun duñu ñu dara Macky Sall bëss bo leen ma déggul xam leen ni ma ngi fenen duma ko c'est le combat d'une vie ce combat là bo leen ñu gisul sax bu leen né no nañ tant que Macky Sall sera là on sera toujours là pour défendre ce pays là parce que ce pays a besoin de sa jeunesse on est les pays les plus jeunes au monde actuellement la jeunesse est une force la jeunesse est une force En Europe, ont une des populations vieillissantes une population qui a 50 ans 60 ans ñun une population yep ils ont moins de 30 ans c'est une force qui doit reconstruire ce pays là donc jeune yoy waro len dawlo ñuy dem parce que manque d'opportunités. dañ doivent wara créer opportunités. tu avais promis 500 000 emplois ken musul di 500 000 emplois lu dul 500 000 problèmes yo ont créer ci Sénégal ana 500 000 emplois je ne dinañ gëna a jël bitim gal yi tay plus que jamais bu fekkone créer nga 500000 emplois ci Sénégal non sama gars lepp lu nek sen bir xol mo nek sama biir xol lepp luy problème au Sénégal yéen a ma ko gën xam tay dañoo egg ci point de non retour avec Macky Sall y en a marre il faut qu'il quitte notre pays on ne veut plus de Macky Sall on veut qu'il quitte notre pays lolu ñëpp dañ ko wara wax parents ñu ngi leen di ñaan motiver leen sen doomi motiver les seen dans toute révolution il y a une génération qui s'est sacrifiée pour que beneen génération mën nous en paix motiver les seen doom titre les leen ne décourager les domi. yi chaque homme chaque homme a un destin si notre destin est de sauver ce pays là suñu ay parents dañu nous qu'on essaie de sauver ce pays là Mais encore koy ñaan d'abord sama propres parents nous ko ñaan parents yep yo, xamanteni, de dañuy téye sen doom Sénégal parce que ce pays a besoin d'une jeunesse déterminée jeunesse boo xamante pour relever les défis donc encouragez vos enfants parce que ce pays compte sur vos enfants encouragez leen sen doom tout le monde ne peut pas mourir dans une bataille il y aura peut-être quelques pertes mais il y aura tout un peuple qui sera libéré et pour la libération de ce peuple-là tous les sacrifices méritent d'être faits tous les sacrifices méritent d'être faits ou méritent d'être consentis pour nous libérer de suñu dëkk jërëjëf sama gars yi vidéo bi j'espère que di ngeen ko partager bu baax sénégalais yëpp jot ko ñun dinañ continuer xeex ak yéen bu leen ragal dara menace Macky Sall tiitalu ma benn yoon daf may gën a motiver tous les jours parce que je sais que lu ñuy def mu ngi koy gën a déranger donc dinañ ko continuer xeex ci réseaux sociaux dinañ continuer wax ba jour bi nga xamante ne ne nga danga may danga may jàpp ba jour boo xamante ni yow Macky Sall gis naa la ci say prison tant que jour boobu egsiwul xamal ni on est avec ce peuple et on te combattra toujours plus déterminé que jamais jaajëf sama gars yi jërëjëf nekk ci que la paix soit avec vous gën leur am courage pour nous libérer suñu réew jërëjëf